asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi asalaamaaleykum mbokku mbokk yi asalaamaaleykum mbokk yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp xanaa rek ñu ñëw jottali leen benn communiqué boo xam ne mu ngi concerné ñi nga xam ne ñoo dëkk ci commune de Genova mbokk yi mu am ndimbal loo xam ne commune de Genova mu ngi koy bugg a defal résidents yi ñi nga xam ne ñoo dëkk foofu nag lañu wax ñu dëkk ci commune ba bu leen sori suñ bureau bi nga xam ne moo nekk Genova suñ euh, xarit ba fa nekk di Amadou Fall moo def aw audio bi ñu bëgg leen ko jottali bu leen sori. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen euh, usager Sala yi yéen utenti Sala yi man la Fall maa ngi leen nuyu bu baax a baax lii ma yónnee nag ab euh, avis la ab aviso boo xam ni mi ngi jógee commune bu Genova. Euh, képp koo xam ne rek nekk nga si ay difficulté commune bi day joxe ay bon ay bon alimentaire bon yi nag pour ñu mun li see jox il faut nga am ISE ISE boo xam ne mi ngi en cours de validité ISE boo xam ni ëppul vingt mille euros ba pare nag nga doog a dugg ci site bi boo duggee ci site bi nga nga bindu waaw site bi nag képp koo xam ne mënoo dugg ci site bi bindu Euh, bu dee utente nga moom bu fekkee ne usage salanga boo ñëwee fii allah ñun dinañ la jàppale ba nga bindu ci incha allah mbindu mi nag demande yi nag commencé na tey jii ci alxames bi 3 décembre war a jeex le 12 décembre incha allah waaw képp koo xam daal mënoo bindul sa bopp wala mënoo woote ci numéro vert boobu ñu joxe wala nga woote commune ngeen rendez-vous boo ñëwee fii fekk nga nekk utente sala incha allah ñun dinañ la jàppale ba nga bindu si incha allah. rajo Déparé sunu bopp. waa mbokk yi donc loolu mooy euh, euh, communiqué bi jóge Genova te bureau Genova bu Sala Sala mooy syndicat autonome des laboratori africani del mondo dafa dëgg yàlla ñu taxawloon ko depuis 2018 yàlla def léegi ñoo am bureau biir bureau ci biir Genova adresse bi mu ngi nekk via pré numéro 83 Rosso. um di DIPRE numéro 88 rouge euh, wax deug yàlla mu nekk bureau boo xam ne day taxaw bépp doomu euh, euh, sénégalais doomu africain yamul ci loolu rek ba ci tubaab yi sax fi mu nekk nii ñu ngi fay ñëw di fa defarlu seen i pratique kon nag mbokk yi yéen ko dégg noonu képp koo xam ne ci ndimbal lii nga xam commune de Genova mu koy defal résident yi képp ku ci am soxla ci ndimbal yooyu soo demee

68 64 67 mon numéro de téléphone bi 01 08 68 64 67 mbokk yi donc yéen ñi dëkk Genova ak li ko wër dëgg képp ci soxla bépp pratique boo xam ne daf lay may nga am say droit ba nopp xam say devoir su ngeen demee adhéré ci syndicat boobu rek ci via di près numéro 88 mbokk yi donc ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax ne rajo defaral suñu bopp wax dëgg yàlla lii la fi nekkee di jotali information yi nga xam ne ni ne nit ñi dinañ topp seen liggéey ba duñ ko yëg tam nekk nag loo xam ne luy jëri nit ñi mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm seen xarit bàyyi fii ci rajo defaral suñu bopp ba beneen yoon jërëjëf